góor day am mbokki Sénégal mbokki diaspora du bees amatina ci télévision Futurs Médias en collaboration ak Serigne Fallou Luc Nicolaï combat bi ñëpp di xaar muy le combat royal diggante Modou Lo ak Ama Baldé cey boobu combat mbokk yi ñoom ñaar jàkkaarloo woon nañu Ama Baldé toogee côté bële Modou Lo toogee côté bee bii yoon nag laay ban direct lay doon si télévision Futurs Médias Sénégal toj Modou Lo di wax amaa Baldé di ko tontu sécurité bu mat sëkk nag laa wax moom la ñuy def ci boobu la jàkkaarloo sambi ñaar fukki fan ak benn ci weeru octobre bu 22 heures jotee newoon naa la événement bu mag télé bu mag télé bu mag événement bu mag ak Serigne Fallou Nicolay mbokk yi jàkkaarloo bi ak direct bi loolu lépp ki leen ko may du kenn ku dul KP di transfert d'argent bi gën a wóor sénégalais yee ko moom ci Sénégal la nekk ak ci bi réew ku mos jàkkaarloo xam ni jëw a ndax kon événement baa ngi noonu le 21 octobre à 22h en direct ci télévision Futur Média seen fàllu Luc Nicolaï kenn du yow Futur Média kenn du yow waaye KP kenn demul nga des ndax moo ko maye ci réew mi waaye ku ko bëgg nag ci bitim réew nii ngay def da ngay dugg seen affiche point com jënd code bi mbokk yi kon nag événement baa ngoog samedi bii le 21 bu ko kenn tardé face to face Ama Baldé Modou Lo royal le novembre ca arène nationale drapeau Moustapha Gueye le deuxième tigre de Fass Modou xarañ Lo Modou xarañ Lo Ama Baldé jour si moyen sept jours combat bi ñëw na adversaire bi gis naa ñeme na la nee foo taxaw dina la fekk dina la duma dina la daan non loolu waxi waxi mbër la waxi scientifique la rek scientifique moom di boo yoree micro bi wala ñu dëkkal micro bu la neexee wax loo neex mais bu arbitre si digg géew ba leneen la nekkul ay wax rek moo fay nekk mais mbër bu la yàgg ñeme laaj la ba jël la kooku est doo ci bàyyi aw ma benn problème bu arbitre bu li ma war a def jërbaatu ama bala jërbaatu silba nañ nekk ne nekk lu mu lu mu mënti doon si àdduna bu ñëwee le jour le jour incha allah yàlla ànd ak man. nee na su amoon lu ko gënal Sa Thiès da lay ëmb indi la Balla Gaye indi la waa Guédiawaye yëpp indi la. yëpp ay deuxième la. Sa Thiès bu ñëwee Balla Gaye bu ñëwee bu ñëwul yëpp la dama koy daan incha allah. adversaire bu nekk ci dynamique de victoire tegal ay victoire dugg na Guédiawaye. ñun ñun suñuy dynamique de victoire lañ nekk ñun tamit daanu ñu waaw ñun dañuy dañuy de de wax wax ji jarutul muy bëri li may wax nii wax naa ko ba pare bu làmb ja bu arbitre bi sifflé ma duma ko daan ko incha allah. li nga wax léegi est-ce que di nga dëggal doo xaaral jërul muy ñëw bàyyil nga yow nga ñëw def lépp est nga lool. man danaa dama man damaa mës a wax lu ma mënul lu ma moom moom moom moom man laa la man maa ko wax loolu. nga ne ndax est-ce mën nga loolu man la man du wax lu ma mënul. nga xaar ko moom bu mu def dara. déedéet moom na ma xaar. waaw jëratul muy ñëw. waa nga ñëw yow. waaw mais boo ñëwee. duma ko daan ko incha allah. looy wax ci lii ki la sonal waaye kii moom suñu waay la suñu lépp la borom ETDR Kandji production kooku kooku ay làmb la ñoo ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax mooy borom mooy borom làmb yi mooy borom dëkk bi ñoo ngi koy gërëm bu baax lépp yem na dimanche duma daan Malick borom le 24 décembre mu ngi nii tëgg gala ama neex Bébé Diène Bombardier Reug Reug Ousmane Gannégal euh, ordinateur Eh, man daal combat yooyu sax man maa lay bëgg en tout cas. Soundiata Calme Ndour Benteñe tas yaakaar maa ngi lay fay. ci benn bis. waaw Yaxin Bambilor Mbisaan John Arara caatu maam góor gi Gibson Doki Wuli Kalzo nëpp ak Mass Bantamba. loolu rek bu fa yemoon sax mu neex foo toll ci wàccaay bi. waaw ñu ngi ci ñu ci wàccaay bi comme ni ma la ko waxee mooy ñu ngi jëm vers le 24 décembre bientôt di ngeen gis ñu fixé date face à yi. wax la nan lañ fas yéene déroulé suñu programme surprise yi bëri daal mën na ci am ci rëg-rëg Bombardier ndax combat boo xam ne combat international àdduna ñoo koy xaar àdduna ko soxla nañu a fi ay signature ci réew ay signature bitim réew. Gambie tamit fu mu toll. waaw incha allah ñu ngi ciy avancé bu baax a baax ak yeneen réew sax yu ne am nañ yaakaar feeg fan yi néew si dégg dara. kon da ngay jéggi frontière dem Gambie dem bitim réew. waaw nag combat bi day jaadu pour ñu jéggi frontière ndax combat boo xam ne ñaari mbër yi nekkatuñ ay mbëru Sénégal kese international lan dañ euh, intégré ci niveau international bi ne ci MMA bi yaa ngi dégg boo xoolee àdduna bi yëpp di leen di suivre sooy seetaan seen vidéo lit da ngay gis commentaire yoo xam sax doo xam ni ñuy bind mooy ñoom am nañ beneen public boo xam ne bu uteeg public wu làmb kon day jaadu ñu tas mbir mi adduna yëpp gis seen bopp. kon daal la 24 incha allah lépp dina yomb. non la 24 lépp dina yomb di ñaanal tamit photo production bi nga xam ne tey moo fi dajal nit ñi vers le 29 muy dimanche bi di ñëw. ñu ñaanal ko mu dugg si journée beeg bisimilahi rahmaani rahim gën seek alhamdulilahi rabbil alamin ndax gis nañ combat yi mu taxawal di ñaan tamit sama xarit sama kilifa sama doomu nday Mansour Ba le 19 novembre dem si diggante Siteu ak la déguèr muy production maa ngi koy ñaanal réussite total di ñaanal bépp promoteur boo xam ne jëm nga si journée yàlla defal la ci lu kawe sa njorte ibulaay ka saalika noonu di ñaanal ñëpp di nuyu ñëpp di wax ne Bamba mm. décembre bis bu mag bi si lay xew le 24 décembre le 24 décembre. feet la diggante Reug Reug Bombardier Bébé Diène ama signature amoon na fii démb gis na la ci signature bi benn adversaire Modou Lô ñëwut Modou Lô ñëw na Ama Baldé ñëwut en tant que promoteur. waaw comme ni ñu wax rek mooy xamuñu lan moo ko téye bu ñu waxantee rek muy Modou Lô mosuñu gis mu tardé signature contrat muy Ama Baldé tamit carrière am yëpp lu ñu jot a suivre mosuñu gis mu tardé signature contrat comprendre nga nit nag loo xamul mënoo ko sori. en tout cas phénomène boo xam ne du journée démb bi rek moo tax ñu ciy wax journée day dal promoteur man mii heure bu ma signature dina am mbër mu ñëw kon dama ciy nekk victime te loolu war nañ ci taxaw xool nuñ koy organiser xam ne ñun ñoo bokk ndey ak bàyyi promoteur mooy mbër mbër mooy promoteur waaw monde dalaalit la lutte wax yéen ñi si ngeen bokk CNC ñëpp si lañ bokk waaye buñ ne acteur de la lutte mbër mi koy pratiquer la ak promoteur bi koy tëgg ak CNC bi ñu jiite kon ñooñu war nañu mën a joxante loxo jàppante xool nan la ñu mën a defaree làmb pour lamb jëm kanam ndax signature mooy tax sponsor bi sawar mooy tax sponsor bi dugal ci loxoom en tout cas daal li ko téye yàlla na doon jàmm boo lu mel nii bëri bëri ñu ciy jàngat avant yi tamit ménagères yi balaa ñu ko signé mu leen ñu man ñu fexe ba mu rassurer leen ne seen mbër dina teew seen mbër dina ko fekkee ndax loolu da ciy am solo heure boo signé avenant rek dugal nga promoteur ndax promoteur dina jël sécurité dina def ay moyens pour fu mu war a defee signature am dina financer ci bis bi kon bu essayé rek ngaañ bi day dem ci promoteur te loolu bëgguñ muy daal ci ñun bëgguñ muy daal ci mbëri ndax ñun ak ñoom ñoo bokku ndey ak baay ba looy wax ñu naan làmb ju du am non ñuy wax loolu dañuy caaxaan Ama Baldé nekk ci wàccaayam Modou Lô nekk ci wàccaayam ñaari mbëri xam lu ñu daj xam ñoom coono bu ñu daj ci cinq yi ñu nekk seeni moroom di bëree kenn ku ci nekk làmb yaakaar la nga am leneen loo war a def ñu du am ci ay caaxaan lañ ko teg. fuñ ko teg ñooñu teguñ ko fenn. théâtre reer ba suur wala sa jabar di def la njaram soow mu neex nga toog am na ñoo xam ne ay bëjjën la ñu yor toog suul ci ay neefere mbaam ba mu fees tëb di yëngal naan ay làmb du am nañ bàyyi seen caaxaan yooyu. am na ku sax mu ne tuus maanaam ba mu neex mais du ñaari mbëri duñ jàpp. seen caa seen caaxaan yooyu nañ ko bàyyi Bamba nañu bàyyi promoteur financé ci làmbam ñu naan du am yenn yi nag promoteur bi ko tëgg moo ci mën a waxal boppam moo mën a rassurer boppam waaye nag nit génn ne 24 décembre du am. ku ko wax ku ko wax doom neex ndayam ma man xam naa li ma lay tontu. <laughs> jaajëf jaajëf. am doole. mbokki Sénégal mbokki diaspora du bees amatina ci télévision Futurs Médias en collaboration ak Serigne Fallou combat bi ñëpp di xaar muy le combat royal diggante Modou Lo ak Ama Balde cey boobu combat mbokk yi ñoom ñaar jàkkaarloo woon nañu Ama Balde toogee côté bële Modou Lo toogee côté bee bii yoon nag laay bon direct lay doon si télévision Futurs Médias Sénégal toj Modou Lo di wax Ama Balde di ko tontu sécurité bu mat sëkk nag laa wax moom la ñuy def ci boobu la jàkkaarloo samedi ñaar fukki fan ak benn ci weeru octobre bu 22 heures jotee newoon naa la événement bu mag télé bu mag télé bu mag événement bu mag ak Serigne Fallou Luc Nicolaï mbokk yi jàkkaarloo bi ak direct bi loolu lépp ki leen ko may du kenn ku dul KP di transfert d'argent bi gën a wóor sénégalais yee ko moom ci Sénégal la nekk ak ci bitim réew ku mos jàkkaarloo xam ni jëw a ndax kon événement baa ngi noonu le 21 octobre à 22h en direct ci télévision Futur Média Serigne Fallou Luc Nicolaï kenn du yow Futur Média kenn du yow waaye kaapay kenn demul nga des ndax moo ko maye ci réew mi waaye ku ko bëgg nag ci bitim réew nii ngay de da ngay dugg seen affiche point com jënd code bi mbokk yi kon nag événement baa ngoog samedi bii le 21 octobre bu ko kenn tardé face to face Ama Baldé Modou Lo combat royal le 5 novembre ca arène nationale drapeau Moustapha Gueye le deuxième tigre de Fass Modou xarañ lo Modou xarañ lo Ama Mbaye